قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلاً alhamdulillah bal aktharuhum la ya'lamun innaka mayitun wa innahum mayitun summa innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum taxtasimun sadaqallahul 'azim macha allah yéen ñiy siiwal ci Mouhalim TV yaakaar naa dégg ngeen ayat alxuraan yu neex yooyu waaye itam tam màgg mu mel ne tam ñoom xale yi comme ni ko suñ bi waxee léegi xam-xam bi mu ne ñu am na lu ñu ci xam ndax liñ doon waxtaanee fi mu jëlee day nekk loo xam ne macha allah daal euh, laaxar wa daal mel na ne daal wax dëgg ci moom bara la boo xam ne. léegi eh, mi am xale bi itam wax dëgg bu continué woon jàng moom duñu moo tax xefe dañuy fay kon bàyyi kon euh, émission jàng neex na lool ko gisee yow boo xam ne mën naa am sax moom xale bi euh, bokk na ci xale yi nga xam ne seen ay waajur comme ni ko fa Fallu waxee daanaka buñ fi ñëw Sëriñ Fallu amoon yitte rek mooy mu jàngale alxuraan ñu amub yar te feeñ na ci euh, doxin bi waaye nag mbokk yi lépp lu yàlla tax a jug rek bu dee dëgg la da koy gis ñiy jàngale ngir yàlla ak ñiy jàngale ngir leneen itam ñaare fa nga koy xam mooy ci résultat ya ñaare moom résultat ya mu yoone lépp sëñ euh, Mbacke dégg nga xale bi njàng mu am solo mi mu jàng yaakaar naa itam nii njàng mi sellee baaxee ci xale yu góor yi noonu itam la selle ci jigéen ñi nga xam ne itam jigéen ñi mel na ne fii ñu ngi fiy jàng waaye itam ñoom it leen ci condition yu am solo sëñ sëñ Mbacke jërëjëf euh, sëriñ hmm. euh, foofu dañuy dañuy jiital rek hmm. li nga xam ne mooy mooy mooy sas sasteel daara jooju. Hmm. sof ko ci daara yi Serigne Fallou Mbacké hmm. ji. Hmm. daara Serigne Fallou mooy liggéey bi. daara mooy liggéey bi. lii lépp it mooma. lii lépp mooma. gannaaw bi daara Serigne Fallou ji doxee ci sart yooyu ni ciy doxal te laajuñ ci kenn dara. am ñooñ dañuy ñëw jaayante am ñooñ dañuy ñëw. yàlla suñu borom dogal nañ ko bëgg niñ ko manee hmm. waaye bëgg seen njaboot am alxuraan hmm. te la ñuy dox di ci dox ba am ñoo xam ne am nañ yitte yi hmm. soxna yu jàng te xëy na booba sasowut ci daara ji loolu moo indi sostel daara yi soxna jaara ji internat bi daara yi soxna jaara ji di tax ñu sos ko mu nekk internat itam yaakaar naa ñi xam ne ñu ngi ñuy seetaan dana ci am ñooñ danañ xam diggantele daara yi soxna yi ak daara yi góor ñi lan mooy seen différence. Mm, mm, mm, macha allah différence boobu ci lañuy ñuy ñëw indi ci tuuti développement yoo xam ne xëy na maanaam du xaj ci jataay bi. Mm-hmm. waaye danañ ci mën a indi tuuti rek loo xam ne dañ ko tënk. Mm-hmm. ngir ñi nga xam ne déggoon nañ ñu ne daara yi Sëñ Fallu dañoo jaayante di jël ndaw ñi di leen jàngal. Euh, ngir yàlla. nga xam ne sa suñu benn waajur lenn. loo xam te ni lu mu mënul la. ku fi def yaa jaayantee sa bopp def ko waaye kenn mosulaa woon ne la jëndalal sax xale bi takkub caaf mustaam mm-hmm. gannaaw ba loola amee ay ay ay ay mbokki jullit ñoo xam ne itam ay waajuri donga ne dañoo am pas-pas ak yéene seeni doom yu yi gën a ndaw ak seeni doom yu jigéen ñoom itam ñu jàng te mu mel ne yaakaar naa ndaw ndaw loo xam te ne nii weesoogut loxoy waajuram wu mm. jigéen mm. ak jigéen joo xam ne te ne xay na tey mu ngi toll ci xaw a fëkk tuuti. Hmm. ñoom ñoo ñu say seenub saytu. Hmm. nekkul loo xam te ne nii lu lu lu a jaayante la ci ni koy bëggee. Hmm. faw da ngay wut ndaw ñoo xam te ne ñoo leen di taxawu di leen saytu. ci njàng waaye ci di leen defaral seen yaram ak seen yére. loolu moo sabab sasu daara soxna jaara ji muy internat boo xam te ni ñu ko sas ci jamono yee jàll yaakaar naa. luy war a toll ci 6 mois juróom benn weer mm. gannaaw bu ñu rëccee tarib daaw bi tuuti rek mm. mu nekk bërëb boo xamante dañ koo sof ci daaree sëñ Fallou ji mm. waaye mu nekk bërëb boo xam ne nag dafa xaw a beru noonu ngir dafa am ñoo xam te ni ñoo fa nekk di saytu ndaw ñi ci njàng mi ni ma ko waxee léegi ak ci di leen toppatoo ndax ndaw lu weesoogul loxol waajuram ak jigéen faawu dees leen di saytu mm-hmm. Mm-hmm. du ñoo xam ne dañ leen di bàyyi nii rek tey comme ndaw daari Sëñ Fallu ji ña fa ne am na ñu leen di saytu ndax euh, ñoo fa mag kenn ku ci ne jox nañ la nombre boo xam ne ñoom yaa leen di saytu ci seeni sol ak ci seen ci lépp loo xam ne daa ci seen yaram yaa leen di saytu hmm. donte donte bërëb buñ jaayantee teew nose nañ ko ba hmm. ña fa nekk dañ leen di toppatoo hmm. suñ kemtulaay kattan fii itam jël nañ ñoo xam ne ku ci ne am na lu daara ji warloog yow loo xam te ne nii saa yu jotee dana ko yëkkati teg ko ci loxo a doon du du du toog di tegu benn benn benn sax simili xumala ak ab fan wala mm. yeneen fan mm. boo amee ñetti at mm. ba fukki at foofu la tàmbalee nga wutal ko ku koy saytu wutal ko télé télé boo xam ne sax da koy seetaan mu méngoog nag seet daara ji daara ji la xam ne moom lay jàng la seetaan méngoog moom nga xam ne la koy dolli xam-xam la waaye du doon luy luy luy luy am xelam wutal ko bërëb boo xam ne te bërëb bu dalwaay lay boo xam ne maanaam waajukaay yeeg yëpp sax ca ca biir bërëb boobee lay ne nga xam xale bi du am benn benn benn perturbation boo xam ne day am boo xam ne hmm. day ñëw sonal ko hmm. loola moo waral ñu sas ci loolu ngir saa su weer wi de hmm. la ca war a dem nga yëkkati ko jox ko seen borom ngir saytu ko gën a matale amaat yeneen sart yi yoo xam ne taxaw nañ ko mu jëm ci daara ji ngir dañ koo tënkoon ci baytub sëriñ Tuubaa boobu muy wax bi diyaali bi laa bokkaay xale bi dafa am kook bu ñëwoon boo ko boo ko tàmbalee fitnaal rek noppi nga am ci moom dara. dëgg la fii nag xale yi nga xam ne ñoom ñooy ndawul internat bi nga xam ne moom internat Soxna Jaara hmm. dañuy tere sax ku leen waxuma door waaye yëkkati leen kàddu gu kawe. li ñuy wax hmm. gëdd sax. dañ koy dañ koy tere. Hmm, macha te naa nekk nag. ah, ah kay ah kay mën dañ koy tere. loola loola. sart sart la ci daara ji. loolu hmm. dañ koy tere. Hmm. lépp loo xam ne day nuru li fitnaal xale bi dañ koy tere. macha allah waaw loola mooy li nga mooy sart yi. Hmm. Eh, yi nga xam te ne nii. nañ cee jukki tuuti bu ñu posé tuuti. muy daara maam jaar yi li nga wax di lu raisonnable suñ bi ndax euh, jigéen ak yow ni mu jafee damaa jël Eh, waaye jigéen ma jël njàng meeg yor gi waaye la yor maanaam bu benn loxo doon yor góor jigéen ñaar loxo ko yor ndax dafa compliqué waaw ci jafe-jafe bi kon day mel itam ba léegi mayees naa jàpp na daar jóg itam waqfu la ndax par rapport ak daara yi ñu xam ci dëkk bi ñu yor ay internat wax dëgg yàlla gis na ne ruxsa am na ci te yaakaar na loolu bi nga ko gisee da nga ko mën a xam waaye itam bëgg xale yi koo xam ne moo leen di yor di leen jàngal kooku à part la ko xam ne buñ jàng du ma leen di yar leen seetu loolu à la jigéen moom li góor ma xam ne góor mën naa toog ñaari yére ñett yére ñett fan a ñeenti fan jigéen waxtu nekk day war di day war di kii ak ki di toggal bokku ci ak itam nga li ci itam euh, loo xam am na solo jigéen léeg mu bëgg a wattu mm-hmm. itam jigéen bokkut ak góor daal mm-hmm. bu fekkee day am na lu la bëggoon laajte te laajuma la ko mm-hmm. bu fekkee ma nga ci ñëw laataa nag ñu jeexale si sa diggante ak sëñ Fallou yow itam ndax wax dëgg yàlla euh, ba ñu la xamee ak sëñ Fallou ba léegi wax dëgg yàlla ndax boobu léegi moom naa ngi wax rek waaye itam yow du ñàkk itam nga mën a ñuy wax tuuti rek sa diggante ak moom euh, ci sa cofal ñu ne bëggoon moom yaakaar naa hmm. moom hmm. ne ci biir daara ji doxin wi ak li ci xol yi. Hmm. xajut ci biir jataay bi. dëgg la. am na ci loolu mu ci doon développé sax mën naa am ñu dem ba jéggi ñu koy xeti hmm. <laughs> moo tax dañ koy tënk foofu rek. Hmm. ngir xëy na am na ci lool. bu ko wuudee bu ko wuudee waxee ci béyu wopp dañu wax der baa tax <laughs> te bari na ci lool xëy na duma ci mat seede jëm ci sama digg ak moom. ak ci liggéeyub daara ji. waaye li ma la ci nettali nag maa ko dund. Hmm. dundin bu wér a wér ak moom. Hmm. muy liggéeyub daara ji. Hmm. liggéeyub internat Soxna Jaara bi ndax lu ci ne ñoo ko àndoon nose ko. fondation bi ci daara ji ñoo àndoon nose ko fondation bi laa wax. fondation daara ji. waaw man mën naa ko tàmbalee ca wecc ko wecc ko pàkk bi. Ah. ba ci fondation bi ba ci tabax bi eh. ñoo ko àndoon nose ko. booba léegi ñuy ànd. macha li ñu boole nag nit moom bu ngeen bokkee wenn waajur. am na loolu amatul laaj leen li leen boole moom loolu moom beneen mbir la. waaye nag moom waajur woowee yal na ko yàlla yàggal te yoreel ko. Mm. moom da da cee liggéey lu am solo ndax. ak mm. pas-pasam ak yéene mooy booloo ak ànd. boo xam te ni waxtu saa su ne dañu koy fàttali. Mm. may itam may jëmm joo xam ne ñoom ñi ma yàlla booleel mën naa ko cee tudd. tudd ci sëñ Mokho Jami topp ci ba ci ki gën a ndaw. ku ci ne ci ñoom jox jox jox nañu cër. te itam mi ngi dox ak ñun la war ci ñun. kon ñun su fekkee ne amuñu alal duñu yëkkati def ko ci liggéey bi. kon war nañoo man suñu doole wala suñu xel. Hmm. saa yu jotee ñu ànd koog moom. ba mu xam ne ñun lii lañ am te jox nañ ko ko ba mat sëkk. macha allah noonu lañ àndee ak moom. macha allah daara ji it ñoo àndoon loolu maa ngi moom. Hmm. wecc ko bërëb ba ba ci ba ci liggéey bi. am hmm. na jamono wuute na. maa maa ko taxaw maa taxaw bërëb bi ba mu ba ba yàlla suñu moom dogal mu jógee ci yitteem nekkaat ci. ñu ànd ko ba nii. waaye li nga xam ne moom mooy njàng mi njàngale mi ñetti at lañ ci ànd yoo xam te nii. maa am bëgg ak pas-pas bi mm-hmm. ndax ku ma xam xam ne ah. laxas naa ci jaayante naa ci ah. dem ci ay bërëb génn naa ci sax ci dëkk bi ah, waaye ba ma demee am pas pasu bàyyi lépp ngir ne ci daara hmm. daf ne moom amul foo amul ko mën a defee fu gën a yàlla fii biñ ñëwee it yàlla suñ moom dogal na hmm. def nañ ci kem kàttanam macha allah ànd nañ ko ba tey buñ mënee taxaw tey hmm. jàngal ab donga ba mu mokkal boo ko doon déglu noo doon doonum kàng ak foo hmm. mën a yegg jàpp ma ne da nga mën a euh, corriger ci moom lu bari. Hmm. yàlla suñu moom jëmm ak jëmmam jee tax. ndeysaan alhamdulilah. waaw hmm. ndax bu fekkoon ubbi ubbi nañu bunt yooyu. mën naa am feneen fu ñu demaatit euh, yaakaar naa lool. daañu fa toogaat tiir bu néew. bu yàgg doog a a jéem a def yenn jéego. waaye ba mu ñëwee rek dafa ànd ñun ci liggéey boobee. yëkkati ay ndaw jox ñu. ànd ñun. muy suba. muy muy muy bëccëg muy mm. ngoon mm. muy guddi mm. ñu ànd ca ba suñ borom defal ñu taw feex yi diir bu néew luñ ca bëggam man man nañ ko ba nit ñi waxe yow ñi ngeen ñoo xamante ne nii tey fuñ mën a dem waxa naa am sax seen alwa yëggagul waaye diggante ba ñu weesu dong boo leen woowante di leen ko saytu mënoo ko rési ñoom la am lenn waaw mu ngoog loolu nag taw la bu baax a baax joo xam ne suñ borom defal na ko ci ci moom la ko ci moom la ko jaarale damaa jëlee nag bokk giñ bokk ak jitte ji nga xam ne moom mu ngi koy def ci ñun yërmande jim làq jëmale ko suñu diggante ak ñun yërmande ji nga xam ne làq na ko mm. jëmale ko ci ñi nga xam ne ñun la ko suñu borom booleel mm. ñu bokk ñun ñi ñu gàttal daal leen boole du fii rek ah, déedéet li ñu ah, boole du ah, fii rek jégg na jégg na alxuraan mën na mën na waaw tàmbalee ci mu nekk ndaw mm. ñu nekk ñoo xam ne xam ne ñi ngi jéem a naam ñu àndandoo ca noona ba ni ko suñu borom indee ci lii mu di ko doxal ba nii itam seetaanuñu ci dara waaw macha allah suñu xam naa bu ma jeexee nag te laajuma la ci bis boobu ñu dëgmal dama ko fàtte woon waaye yaakaar naa baax na nga ñëw ki tuuti mooy le 6 février bi nga xam ne mooy bisub daara ji xam na ci la ñuy firndeel xale yi war a mokkal yaakaar di nga mën a ñëwal ci xale yi mokkal ñaat lañ toll programme bis bi naka lay demee ci tënk su ko defee ñu mën a euh, wàcce jotaay bi jërëjëf hmm. bis bi bis la boo xam ne mu hmm. nga sasoo woon ca Daaru Xudoos ni mu koy waxee nii hmm. ba mu yoree daara ja ca Daaru Xudus mm. ànd ndaw ñoo xamante ne ni ndaw ñu am positif la ba léegi ñu ngi ci liggéey bi tey mm. ànd koog moom mm. ni mu ko waxee léegi ñu di ko taxawal foofe defe naa boo ca boo fàttali ko am na ca jamono yooyu ñu bari ay ndaw lañ def ko bërëb bu am solo foofa sëriñ Amsatu Mbàkke di ko ci gane si guddi gu jot saa ñu yeggee ca bis ba mu ñu ànd koog moom ba nim ko toxale fii ci Daaru Xaddim bi mu ñëwee nag daa fet kolli rek bis boobee. Hmm. Euh, toftal ko ci liggéeyub daara ji. Hmm. mu nekk mën naa ni. Hmm. bis boo xam ne bisub inventaire la su ma ko doon wax ci commerçant boo xam ne daa jaay ba war ñu koy waxati ba ba war a joxe asaka wala ah. mu war a xëy na génne loo xam ne kii année ba jot mu mu mu mu muy réglé bis bi bisub inventaire la nga xool donga yi kenn ku ci ne lay tolluwaayam wàccuwaay boobee nga jox ko ko ka tare woon te bam taree ak njàmbaaram matale ay ay neexal hmm. nga boole ko ca biir liggéey boobee hmm. ka nga ma nga yoroonu donga doon ko jàngal hmm. nga gis ne def na jéego am solo nga boole ko ca bis boobee sargal ko ca waajur wa nga xam ne jàmbaar la woon te doon waajur woo xam te ni mu ngi dox ci liggéey bi donte waajur yëpp jàmbaar lañ waaye mënoo neexal na doon ñëpp nga sette ko jox ko neexal mu yóbbaale waajur yëpp loolee mooy taxawaayu bis bi donga bi nga xam ne mokkal na moom itam nga neexal ko ngir neexal boobee dana soññ ka ca gannaaw ngir moom itam mu def pas ba bu ca yeggatee. Hmm. mu mu mu a tari. lim ñi ngeen war a fasante ren. waaw ren toll nañ ci juróom. juróom juróomi gone. bu da ngaa bëgg rek hmm. moom am lim. Hmm. mën ngaa andi lim boo xam ne xëy na. a taxaw ci kanam tari. waaw waaye nag yow mi yaay saytu. dana am loolu bu bëgg da ngay bëgg toujours bu doon moom mooy présenté wu ci kanam mbooloo mi na doon benn boo xam hmm. su yëkkatee alxuraan bu noppee hmm. kenn du ko mën a am lenn loo koy corriger moo tax ñu tànn ci jukki ci ñi nga hmm. xam ne ñooy mbooloo mi fi doon jànge juróom yoo xam ne nañu dana mën a bis bi te loolu du a ñàkk ngir ñiy ñëw moo waral ñu jukki ci juróom yoo xam ne dana yóbbaale bis bi jukkiwaat ci ñi nga xam ne ñoo tari woon daaw ñoo xam ne tey ren ji incha allah buñ kiyee ba pare danañ tàmbali seen kaamil yooyu ñu war a bind. Hmm. jëmale déwén. ak ñeneen ñi ne xëy na hmm. tari woon nañ war a beq. Hmm. ñoom itam danañ mën a tàmbaliwaat seenub liggéey bis bi daal. bis la boo xam ne suñ bisub inventaire la suñ bisub daje ak waajur yi la waxtaan ak ñoom suñ bisub saafuwante la ak mbokki dëkkandoo yi programme programme bi ci bis bi ni muy demee bi bu ñu xëyee insha allahu rabbi danañ ko bee ci alxuraan toftal ci xasida suñu noppee danañ am diggante bu néew danañ tënk ak yi liggéeyub daara ji hmm. gën a soññante ci suñ biir hmm. suñu noppee daañu tàbbi ci li nga xam ne mooy programme bis bi hmm. jëm ci waxtaanu culture nga xam ne moom lañ fa baaxoo amal moo xam ci thème bu a doon jëm ci alxuraan wala jëm ci suñu diggante ak dëkkandoo yeeg wala mbokk yi mën doon suñ ca noppee waajur yi danañ fa jël kàddu kàddu daara ji sëriñ Xaadim Turam yi nga xam ne mooy mën nañ ne mooy kilifa jataay bi di parrain bis bi mooy tëj jataay ba ñu ñaan hmm. ñaanalante hmm. ñu yeewi ko ba beneen yoon incha allah eh, jërëjëf jërëjëf Serigne Mbacke ci kàddu yu am solo yi kon yaakaar naa kaddu tàggatoo yi maam ñooy eh, tàggatoo tàggatoo sant suñ borom hmm. sant suñ borom gërëm seexul xadim baax a baax ci ndimbalim ñu ndimbale ba ñu mën a jéem a tàbbi ci liggéey alxuraan bi nga xam ne tey yaakaar naa mooy lim bëggoon ci dëkkam bi kenn ku ne xam na ne yéene moo doon nekk ci dëkk bi di fi jàngale alxuraan hmm. suñu suñ boroom tàbbalee ñu nekk ci ñooñe di ca jéem hmm. xay na mënaguñ waaye ñuy jéem hmm. loolu la ñuy sant yàlla bu baax a baax inshallah sant sunu waajur yi nga xamante ni moo ñu meññ te lu ko gënal ci àdduna mooy nekk ci alxuraan ji di ci yëngutu ànd ko ni ko war a ànde gërëm dong yi nga xam tey kenn ku ci ne maanaam diirum ñu fi nekk di ànd ak ñoom liggéey bi mm. ku ci ne mm. amul lenn loo xam ne da xëy teg ko ci yoon woowa mu am lenn lu mu cay lu mu cay kii nangu gi ñu nangu mm. di leen ñaanale suñu borom mottali seen yéene ci biir daara ji allahumma amin tëjtali sunu waajur bi nga xam ne dañ koy dañ koy ran rendaale hommage ci biir ci bis bi. muy hmm. Serigne Saliou Touré mi nga xam ne lii lépp mooma. waaw ah, wallaay wallaay. waaw ah, lii lépp mooma. moom la ñuy daaneele ndax dañ ko doon bañ a njëkkee. Hmm. ndax boo ko boo ko xasee njëkkee doo ca mën a teg lu oh, ko ñaanal ko. Hmm. suñ ci barkeem. képp koo xam ne image bi itam ñu ngi sàkku nga ñaanal ko fa nga mm. toll mm, suñ borom dooli ko ay xéewal mat na ko te jotal ko ci ab liggéeyam ci barki Seexul Xaadim macha allah jërëjëf Serigne euh, Mbacke ci waxtaanu am solo yi Serigne Saliou Touré Serigne Daar la woon bu mag a mag di wejuru Serigne Fallou mi ak Serigne Xaadim Touré mi ngeen miin foo ko masaana fekk ci euh, bunt këram mu toog mu demee ba xam daanaka jàngaleetul ñoom Serigne Fallou ñoo daara ji waaye foo ko nuyee nu néew ne doon lakk daara ji euh, bëggoon lu baax loolu waaye itam amoon yëg waaye itam bëggoon mbokk trop trop trop trop Euh, ñaan suñu borom yàlla la yërmande ak njëggalam ci moom tàbbal ko àjjana te yeexanu saan naa lii lenn la rek li nga xam ne moo leen bëgg na wane ci daara ju am solo ji di daara boo xam ne modèle la jàpp naa ne ku fi ñëw nga xam ne barab la ci yi ñaan suñu borom nag bi ñu dëgmal muy le 6 février yàlla nañ ci àgg ak jàmm te ñu am ci lu kawe suñu ñu xam ko man mën naa boole sama bopp ci ñi nga xam ne mën naa wax ne mën naa ne yor nañ ci moom ndax ab yar moom dañuy wax ne man allamaka harfan fa huwa mawlaaka kon mën naa jàpp sama bopp ci yar ndax lu métti métti ay circonstances dund nañ ko maag moom xam naa ne fàtte na ko waaye nii mu mel wallahi baa ko xamee ba léegi noonu laa ko mos a xamee muy bëgg lu baax ak dogu nekk ci xasida yi nekk goo xam ne gu wér la waaye tam suñu xel dem ci Serigne Mouhamed Touré ndeysaan ndax itam moom itam ku baax la woon wallahi te bëggoon alxuraan te itam euh, euh, teeloon na sotti lool yaa ni yàlla doolu yërmande jégal suñu Serigne Saliou ci boppam la yàlla may lu jafe mooy ak njabootam ñëpp baax ñëpp la suñ ñëpp yàlla baaxal nga gis Serigne Fallou bëgg yooyu suñu xaarim suñu xaarim Touré nga xam ne ni ma ko waxee léegi moom wax na léegi moo leen yëf waaye ñun ñi itam ni muy son nekk ñun di ñu li lu ñitu li ñu lijjanti li ñu xaritu boo xam ci li ñu nekk day firndeel na kon sëñ Saliou ci boobam la ñëpp la njabootam baax lool yàlla na suñu bon doolu yërmande jéggal ci moom di leen dox dig dañu nag ci beneen jotaay entretien avec Mouhalim te nag entretien spécial la woon fii ci daara Cheikh International Modou Fadel dig daje kon le 6 février fii di ngeen ko am en direct sur Mouhalim TV sant bu baax sama caméraman jërë ngeen jëf